استجاب بالمخفي ربي بالمطالب الخزي أسأله bare bare noonu ci xamuk saa yor lu seen i doxin waaye bi nga ma booleeg ñoom ma taxaw ñoom tuuti gis naa ne la nga doon jàpp ci ñoom lépp mi ngi ci ñoom mooy daayira Majmahun Nurayni bi nga xam ne moo jóge Thiès te ëmb dëkk yi wër Thiès lycée fa nekk ak université rek yëpp ña fay ak lenn ci ña doon jàng ba di bay liggéey ñoo ëmb daayira bi daayira bi nag am nañ tawfeex macha allah ndax li nga bëgg ci ñoom ñi ngi ci ñoom mooy ndaw ñu takku ñu pasteefu ñu jub ñoomu jenn yitte judul liggéeyal Serigne Touba sëñ Saliou Fall mii daaw am na kàddu yu mu waxoon daaw jéeg kàddu yi yëgoon nañ ne sori na ci yow jàpp naa ne mën na ko waxaat waaye dama ko waxoon ne ko yóbbaale nga ma ci kàddu yooyu ndax daf laa waxoon ne jenn yitte képp la nam ñaarut te mooy am ngërëmul Serigne Touba te ngërëmul Serigne Touba loolu waxoon la ne ci yow lan ko yaakaar buñ ko mënta am ci yow duñ ko am feneen loolu lu sori la man leen di ngeen maa yóbbaale ci loolu waaye ba nga ma booleeg ñoom ak léegi tàggoowuñ fi seen bis bi it dañ koy yàgg waajal ndax ba may def bisu sëñ Abdou Latif ci saam dañoo andi woon ñëw fanaan ak man yendoog man tàmbalee waajal bis bii waxoon na itam jàkkaarloog si jëmm ji nga gis leen ndax xam nañ ne fi ñu maa nekk yaa ngi leen gis gisum xol waaye namoon nañ jàkkaarloog yow ñu jàppoon bis bi bu yàgg ñu daan def bu ñu ñëwee fanaan ci mbaarum maam jaara boo xëyee fajar jaar fa yewi leen bi ma leen xamee ne ñëw fajar gi tey du jàpp ni lañ nasoon ñëw fanaan ci mbaar mii démb ci timis ba léegi ñu ngi jàng dañoo fanaan jàng xëy di jàng ba waxtu wi ñu ñëw toog ci sa kanam nag ma xamal la si ñëpp ak bopp gaa ngi nii bokk na ci seen i ndimbal léegi Youssou Diop nee na daa toog di déglu seenum jàng dégg ko waxtu jàpp ne ab kuréel la ci isbu tarxee waaye jàpp ne du du ma leen mbooloo bi ma ko waxee ni mbooloo mi demee ma ne ma jàppal naa leen kóllëre bis ni ki tey fii ñëw nuyoo ak ñoom nee naa ko bu nu wàccee dinaa dinaa leen andi ci ñenn ci ñoom ca daara ja ñu dundal si loolu yu si dugal leen naa di ñëw ba Thiès seet si leen kon nag sëñ Saliou sëñ bi nee na am ngeen digal bu baax ci siyaara ji daara ja te lii sëñ Youssou xalaat wax ne jàpp nañ ne dañ leen a booleeb liggéey ca kanam da ngeen war a ànd sëñ bi nee na joxe leen digal ci ànd googu ngeen jàppanteeg ñoom bu baax kon mu ngoog taw feex jaa ngi noonu kon sëñ Saliou tëggal kàddu yi rek